bis sëriñ bi dafa ñëw di di dikk ànd ak ree yu metti fekk mbooloo toog mu ni leen ndax xam ngeen li ma tax di ree ñu ne ko bëgg nañ koo xam mbàkke muy leen sama borom ndax maa waxoon ne képp ku aju ci yow nee na du seet ci dara dana la jéggal te daan la tabbal àjjana nee ma ne ko ndax mën na maa xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel nee na mu ne ko mooy képp koo xam ne bu ñuy jàng sa xasida yi dana génn ay rongoñ kon nag jooyi ci la jooy leen wañu liñ ma xasida moo gën a kawe lu dul alquran ak xadis lu dul alquran ak xadis rek xasida la gën a màgg sëriñ bi moo ko wax moo tax mu ne wa faaqat gayra alqurani wal xadisi sëriñ bi dafa wax ni xasida dana yëggale murit buy tarbiyawu ci sunu borom xatiya yuusilu murida tarbiya li dil jalali wa murida tarqiya xasida day yëggalee ci yàlla day yóbbu nit ci yàlla tuwasilu aqlaami ilallaahi aabidan ila xalwatin wallahu abqa kama abna sëriñ bi wax nañ sama xasida yi dafay dàq seytaan ida katabtu aw qara'tu harwala iblisu fawran maa man taqawwala saa bu ma bindee mbaa ma jàng iblis day daw nu mu gën a gaaw li yaalami naaziru anna xatti ila ilahina ahabu xatti Sëriñ Tuubaa nee na mbindam la yàlla gën a bëgg ci mbooleem mbindigaa yu baax yépp kon loolu day wane yu xasida sëriñ Tuuba wax na it ne kitaabati min lawxi rabbi tanqulu laa yamtari fiihi nabihun yaxqilu sama mbind mii di sama xasida yi ci lawxul mahfuz laa leen toxale gannaaw nee na yuusilu man ahaba képp koo xam ne bëgg nga sama xasida bi dana la mën a àggale ci yàlla waxatuma la nga bëgg ko di ko jàng kon sax àgg ca yàlla bu ko nattab xasida sëriñ bi ñaan na képp ku koy jàng mu yëkkati saw tur dana la la sa xel leer na la sa xol warfa liman biha yusalli dhikra képp ku ci julli na nga ko yëkkatil ak aw turam wajbur lahu alxaatira na nga ko dalalal am xelam washrah sadra na nga ko leeralal ab dëram amul lenn loo xamee ne lii gannaaw alquran bu wéyee lu gën a gaaw ci àggale nit ci yàlla muy xasaay ci sëriñ Tuubaa yi ndax mi ngi ko jukkee ci alquran jukkee ko ci lawxul mahfuz jukkee ko ci xadisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci màggal xasida mooy xasida day yëngal aras إذا كتبت اهتز عشر باقي xasida day yëngal malaaka yi ñuy fett soo ko sabbal ni ko murid yi defe bu ñu dee dégg njàngum xasida wa sabbaxat malaaiku tibar haajat qasaidi quluba ahli badrin wa saarau li xifzi ahli sëriñ bi nee na sama xasida yëngal na xoli ahlu badrin yëngal na xoli malaaka ya doon xare ca badar ni mu yëngale xoli yeneen malaaka yi ci yëpp tax na ñu di ko taqoog man di ma sàmmal sama njaboot. bokk na ci kemtaanu xasida soo xoolee alquran nga xam ne juróom fukki isib la di téeméeri saar ak fukk ak ñeent léegi nga jël xasida saat gi nekk ci xasida da lay jox juróom-benn fukk juróom-benn fukk yémoog juróom-benn nga jël xaaf bi ci des ak yaa bi ak del bi loolu soo ko boolewee da lay jox téeméer ak fukk ak ñeent te alquran téeméeri saar la ak fukk ak ñeent Serigne Touba di wax ne yaa saa ili an amalin laa yanqati xus ilal jinaani miisaani Serigne Touba nee na yow mi bëgg jëf joo xam ne boo ci nekkee du dog tey ba ëllëg jàppal ci sama xasida yi ab yoolam du dog xasida dafa làmboo mbootum laa ilaha illa allah ila tawalifi yaqulu llahu asrar laa ilaha illa allah isa katabtu aw qaraxtu xarwala iblisu fawran maa man taqawala bu ma bindee ma jàng iblis daal daw sori ma kon képp koo xam ne bëgg nga mucc ci iblis mucc goo xam ne gi dana doo na naa ngi faaw te doo tase moom mukk ci àdduna demal di faral di jàng xasaay di faaw iblis tàggoog yow demu yoona am na fi jamono Italie ñi indil problème immigré yi Pape ba fa nekkoon exemple xaw ma de tuddati xaw mooy kii soog a toog wax ne li ngeen mën a ci ci immigré yi di ko def ni ngeen fi bàyyi ñooñu di yor livre yu ndaw yi ndax seen livre yooyu baax na ci réew waaw loolu lépp di ak sant yàlla boo demee ci Irwaa u Nadim sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ma ngay wax ne am na naar bu ma a ñëw ci sëriñ bi nuyu ko sëriñ bi ne ko am naa fi xasida goo xam ne day ku ko mokkal deesu la laaj ci bàmmeel naar ba ne ko xamaguma gu mu doon waaye danaa ko mokkal danaa ko jàngal sama yaay naa ko jàngal sama baay naa ko jàngal sama soxna di lim ay bokkam sëriñ bi di ree muy lim sëriñ bi ree ba mu àggal sëriñ bi ne ko demal ci mët lamin mu jox la ko lii lépp nag bu amee daf ñu yóbbu kon ci ñu fas ñu war a farlu te am lépp lu baax lu tasaaroo woon nee na suñu borom dajale na ma ko ci fi day yàlla yàlla dundil ci boppam gindalu ci sëriñ Tuubaa boole nu dimbal nag ban mën a sàkk ci jaamu yàlla la gis. waaye nit ku baax ku yàlla nar dimbale it dégloo bëritu Serigne Touba ba jaral ko ca jooy boo lëggatee yomal xiyam onga ñam yooyee naa ne bu du teg tànk mukk sawara ndax day fay sawara rongañ rongañ bi nga xam ne da nga jooy ngir lëggéeyub Serigne Touba bi neex la ak leer yi def te Serigne Touba sunu borom nangub lëggéeyam nga bég ca soo lëggatee yomal xiyam rongañ boobee dana fay leeru tàngooru sawara am na benn xadis bu ko yónent bi wax nee na pënd bi nit ki di doxee jëm ca jàkka ja ak pëndëb xare neena na ak pëndëb sawara mënuñu ànd ak ñaar